moo xam muy dakaar moo xam muy taxi moo xam muy biis moo xam muy horaire moo xam muy charette ñoom ñëpp tey daje nañ fee. da ci gën a am solo nag mooy ñu indi fa ay professeurs yoo xam ne dañ leen doon defal ay cours di jàngale naka lañ accident yi war a nekk ak nan lay mel nan lañ ko muy moytoo. indi fa ay nit yoo xam ne wàllu autoroute bi nga xam ne ñëpp lañ koy jëlandoo ci accident yu bëri di ñu mën a wax nan la lan mooy indi jëye ji ak la koy mën euh, euh, tax ba du am. yooyu yëpp ñu leeral ko fa muy yu am solo yoo xam ne nii monsieur le maire Abdoulaye kaa waxoon ma ne naa fa dem représenté ko def fekk jataay ba ma ñëwee ñu jox ma kàddu ma jël ko ci turu Abdoulaye ak turu mi nga xam ne yaa yor màggal gi lépp nekk sa ba ma waxee tamit ñu rafetlu ko ma wan leen ne sëriñ bi bëgg na ci lii mu xalaatu xalaatuloon ne domaine bu toll nii yëpp ci transport Sénégal muy Kaolack muy Tamba muy fu nekk kenn ku ne jóge fa ñëw loolu jàppewu ko woon nii waaye dana gën a leer ci kanam ba ngeen xam ne dana xam ne li ngeen nekk lu am solo la. loolu nag dinañ waxee ne nu wëlbatikuwaat ñëwaat fii ñoom ñëpp jébbal la liggéey bi wax la ni ñuy liggéey ak ni ñu war a taxawee man ni leen woon nag kon man ñoo fa bokk ne ci ñoom ñoo ma yabaloon. ma ñëw teewe ko li ma fi gis danaa dem ba ci kanam sëriñ bi ma leeral ko ko ba mu xam ne lii mbir la moo xam ne nii euh, beneen taxawaay moom maire bi dana ko ci jël. ce moom mooy maire bi ce moom lu mu ci wax maire bi dana ko ci taxaw ndax liggéey bi liggéeyu maire bi du liggéey kenn ndax lépp lu jëm ci transport jëm ci wàllu accident lu koy dindi loolu domaine maire bi la ndax sareet yaa ngi ci taxi yaa ngi ci lépp ci loolu compétence su maire la kon nag euh, di mel na ni yow boo yëgee lépp rek mooy mel ne la xalaat yi ma fa jëloon wax ko ci mairie bi yooyu mel na ne dañ ko respecté parce que soo ko déggee rek mel na ni Abdou Lahad dégg na ko ci yow yaay ab yaay lépp ndax yaay yor lépp yaa yor màggal gi lii ci yow la tàmbalee woon te ni ma ko waxee ci yow la yem kon nag ci gàttal sëñ Modou di sant nag ñaar ñi nga xam ne ñoo ko initié ndax wax dëgg yàlla PAM mii moom ku ko dégg nee naa ko transport rek li nga ciy def ci rajo bi di wax code de la route bi daanaka bëri na ñoo jàngal ci yëruñoonu téye ci tey mokkal nañ code de bi loolu itam nuy lu rafet sëñ Modou mii tamit jàppay bi nga xam ne jàpp na ko sëñ moom sama sëñ Modou xam nga li ci ni mu ci daxawee ak ni mu ci def lépp ak mboolem ñi leen di jàppale ñëpp kon nag lii mooy kàddu yi nga xam ne nee naa leen bu ma agsee sëriñ bi danaa leen ko seereel ba sëriñ bi xam seen liggéey bi dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi noo ngi lay nuyu di la ci turu transport yëpp comme ni ko sëñ El Hadj Ndiaye waxee sareet yeeg woto yi ak xeetu oto yëpp secteur transport yëpp ñoo daje woon tey ñëw ñu doon waxtaanee màggal gi ak ni ñu mën a def ba ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm. xalaat boobu nag ak bëgg-bëgg boobu ginnaaw bu ñu ko amee yow yaa tax ñu am ko ndax lii nga xam ne sëriñ bi def la ko dénk muy lépp lu jëm ci organisation màggal Touba. bëgg goo ko bëgg ak yéen a goo yéene nit ñëpp jariñu ci moo tax nu ñi itam nga doyloo ñu wóoruñu ci lépp li nga xam ne dafa jëm ci waaru kaaraange yoon dinu ci jàppale itam ci façon jàppale goo xam ne nii bañ ko dooree ba tey at mu nekk dañu ci defal lu kawe sunu njort loolu nag Mbàkke ñu ngi la ciy sant di ci gërëm bu baax a baax ndax lu jëm ci sëriñ bi jëm ci màggal gi képp ku la ciy xeetal ngir nga di ci sonn guddi ak bëccëg kooku yéene lu baax tey yéene na lu baax ëllëg kon nag mën na maa wax ne transport yëpp nga yéene lu baax tey ak ëllëg te saa su ne ma wax ndax transport bi ki dëkk bi saa bu suñuy bët xongee bu ñu ñëwee ci sa mbaar mu tedd mais Mbàkke bu ñu fa jógee mu weex tàll saa su ne itam ma wax ne noonu waa transport ñoo xaw a naqaree dimbali naqaree jàppale waaye kon day Mbàkke saa su ne lépp loo nekk boo gëstoo di nga gis mbooloom transport mu takkoo takkoo takku moom dañu nekk sa ginnaaw ndax li ñuy dimbali dina ko defal transport kenn ñu ko. gare routière bu Ouro Sogui toog nañ ay at mënuñoo am élection mënuñoo jariñu ba gare ba tas commerçant yaa ñëpp tasaaroo keroog ba mu fa ñëwee waxtaan ceeg yow ànd ak Baye Abdou mbay nga boole ñoo sëñ Mourou Mbacke si ñu di ko dox gare routière ba lépp defaru waat na Mbacke te ñëpp jàppoon nañ ne dootul mën a defaru gare routière Ouro ginnaaw bu defaroo dama koy wax fu ne du kenn ku du sa jëmu ci tedd jii Mbàkke te jàpp mu ne sax benn délégation juge waat na ci transport ñëw na la jërëjëf kon li def di ko defal transport sa maam gee tax nga di ko def bëgg sam réew moo tax nga di ko def kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal saa su ne itam di ñaaxaat sama mbokk yi ma bokkal transport nañ la gën a fonk nan la gën a jàpp nan la gën a yëg ndax luñ ci def defaluñ ko kenn suñ bopp képp lañ ko defal ñii nga xam ne itam ñoo fi ñëw comme ni ko sëñ Alaaji Njaay waxee transport yëpp a ñëw yàlla dogal na itam am na ñoo xam ne ñëwoon nañu waaye xat-xati jamono ak yittey jamono moo tax bi ñu jugee ci ndaje mi ñu ne dañuy delluwaat téye téye ñu mel ni ñoom président Pam Ndour rek mënuma leen a lim. daanaka raison yëpp ñu woon waaye xat-xati jamono ak yitte yi moo taxoon ak jàpp na sax Mbàkke sa jëmm ji ak jamono ji duñ la mën a gis am ñoom gëmuñu ne bu buñ defee délégation ñoo fi dana la gis xam naa looloo tax ñu daal di déplacé wu daal di dellu am na fi tam ñu ci bëree bëri tam ñoo xam ne ñëw nañ ñi nga xam ne ñooy liggéeykati aftu yi muy ñoom Abdou Khadir Fall ñii danañu fi dellu siwaat bu màggal jàllee ndax dégg nga seen i jafe-jafe ak seen i yëngu-yëngu te wax naa leen ba taay ne leen bu ngeen bëggee seen aajo faju ñoo leen ma yóbbu leen ci sëñ Bassirou Sène Xaadir te man mënoo leen ko ci lamte mën a def ngir ngeen am jàmm kenn mënu ko ci ku dul moom travail afti yi moom mii moo leen jiite muy liggéeykat afti yi yëpp yëngu-yëngu yi ñu am seen diggante seen njaatige daanaka man mën naa ne lañ ca def ñeneen di leen ko ci defal yàgg na te mënuñu ci am benn solution kon na solution bi fii képp la mbàkki ginnaaw bu maag jàlle nañ fi des bu soobee yàlla professeur jonn mi tam ni ko sëñ Alla Ndiaye waxee tey dégg nañ ci code de la route secteur loo xam ne ñu baree bari bañ nekkee ci oto ak léegi mosuñu koo dégg fii ci dëkk bii itam guleet ñu am lu mel noonu ci wàllu secteur routier kon moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan nga ñaanal ko sunu ànd ak moom gën a wéy gën a sax ndax li mu yor sëfër si képp ko tax a jug ak dawalkat sare yi ñëpp ku yëngu transport. Pape Moussa Ndiaye itam léegi lañ la ko présenté bu maa ngi ko defar transport ak sëñ Fallou Galas Diallo waa waa waa trafic muy taximaan aéroport yi ñoom Mourou Ndiaye maanaam képp ku yëngu ci zone seeni kilifa ñëw nañ Pape Mbaye mi nga xam ne tam moo yëngu ci camion benn yi jiite leen ak ki nga xam ne itam mooy Moussa Mbodj Vidance ñoom ñëpp ñëw nañ Baye Assane Ndoye yebal Baba Thiam mu ànd ak ndongal diwaan taximaan yi ci dëkk bi itam def délégation sindi njiital sëñ Aydara Ñang sëñ Daamloo ak Bagal Mbeng ñoom it ñëw nañ saret itam El Hadji Thiam Sarim ñi moo leen jiit ak seen délégation saret mbake itam ñëw nañ ci njiital Malick Wele mbake Touba yi urbain président Idika ñëpp yabal ay délégation ñëpp teew si itam fi nga xam ne nii mooy Touba am na ñoom dañuy yëngatu ci renforcement de capacité RCS ñoom Moustapha Diaw ñëw nañ Pape Mbaye mi jiite camion benn itam moom itam Mbàkke ñëw nañ xam naa ne ku ma waxul itam na ma jéggal ndax li fi teew lépp comme que bindu ma ko mënu ma koo wax waaye bu ma ko tënkee ci ko mboolem ku yëngatu ci transport ñëw nga ànd ak sëriñ bi te màggal gi day daal di doy sëkk li ma leen wax ci sëñ bi na ñun ñëpp ñoo ko dégg nim ñu jàppee ak li ñu defal kenn defaluñu nim ñu fonke kenn fonkiwuñu kon nag ñun waa transport ñoo war a yokk sunu ngor yokk sunu jom sunu furla ak sunu fayra jàpp ci sëriñ bi kenn bañ a dox sunu diggante ak moom at mu ma wax leen loolu it moom laa leen di waxaat képp nag nee na ñu ngi leen di delloo am nuyoo bu baax a baax di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxol sëriñ Pape Seck mii ak Modou Sall mii nga xam ne moo leen fi daan andi ak mbooleem yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak ñoom ñëpp ak ñi ngeen séqal wet gi ngeen di liggéey mu di wàllu transport ñi ngeen ko daan defaat mu jot de at mu jot ngeen di góor góorlu li muy ponk boo xam ne bu mënta ñàkk ci liggéey bi la waaye ngeen ci def seen jom ak yitte ak xam ne Serigne Touba ngeen di liggéeyal nee ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di leen xamal ne bég nañ ci bu baax a baax sëriñ bi it bég na ci kon nañuy jottale kàddu yi cant ak njërëm jëlee ko ci mboolem ñi nga xam ñoom ngeen ko seqal di leen ñaanal ci barkeb sëriñ Touba seen boroom gën leen cee gàttandu ca ngeen dajee ci ak tawféex dajee ci ngërëmu sëriñ Touba gannaaw bu loolu jàllee nag liñ ciy wax du gudd. gannaaw cant yi ak ngërëm yi. gis nañ ne. gis nañ ne. yéen a ngi ciy góorgóorlu at mu ngeen koy gën yaatal. mu njëkk ngeen koy gën a yaatal. moom activité yi waaye nag nee na dañuy dellu di leen ñaaxaat. ngeen xam ne. ngeen xam ne. fi ngeen nekk. fi responsabilité bu diis la. responsabilité ndax sëfoor. ndax sëfoor. am na sëfoor yoo xam am na ci safoor yoo xam ne mën nañoo bañ a weesu ñaar fukki at. yàpp ko am juróom-ñaar fukki at wala juróom-ñaar fukki kooka doon kilifa njaboot. doon kooka doon kilifa njaboot. njabootam gépp yaakaar ko. njabootam kon ku yor lu mel noonu. kon ku yor lu mel noonu. mu nekk sa gannaaw. mu nekk sa gannaaw. war ngaa xam ne. responsabilité bu rëy nga yor. nga xam ne nit ñi duñu ak jur. du ñu ay saako. ay doomu aadama lañ. ay doomu aadama lañ. yu yoru njaboot. yu yoru njaboot. seenu njaboot yaakaar leen. seenu njaboot yaakaar leen. kon loolu. képp ku koo xam ne nee na ci seen kanam. war ngaa xam ne yaa ngi responsabilité. ndax yàlla tere accident ndax moom kenn ñaanu ko. dogalu suñu borom. ndax dogalu suñu waaye am na ci loo xam ne nag. waaye am na ci loo xam ne nag. am na ci dogal bi am na ci loo xam ci dogal bi. am na ci loo xam ne ci biir dogal dogal bi. loxol jaam bi da cee jaam bi da cee ne. kon accident yi nii la mel. yi nii la mel. am na ci loo xam ne dogalu suñu. am na ci loo xam ne dogalu suñu. loo xam ne càggante ñi dawal la. waaye am na ci loo xam ne nag càggante ñiy dawal la. kon la yéen yéen jiite. yéen yi ngeen leen jiite. bu leen leen bañ wax dëgg. bu leen leen ba di bañ a wax dëgg. ndax bu ñu ànd. ndax ay nit bu ñu dee ànd. nañu ànd ci dëgg. nañu ànd ci dëgg. sëriñ Touba lam daan wax rek ne ñaar buñ dee ànd nañ ànd te yàlla tax. ndax buñ ànd te yàlla tax. ndax buñ ànd te yàlla tax. kenn kaay nax morom ja. kenn ka nax morom ja. kenn kaay nax morom kenn ka mooy nax morom ja. te bu ca ka ca des yeewoo ànd ba jeex. te bu ca ka ca des yeewoo ànd ba daa jeex. kon nag. kon nag. na ngeen xam ne. na ngeen xam ne. ñi nga xam ne yéen bokk ñoom liggéey bi. ñi nga xam ne yéen a bokk ñoom liggéey bi. rawatina ñi ci jiitu. rawatina ñi ci jiitu. a wax a nañ ciy jé gën a wax ak ñi ciy door a xam naa ne secteur bi yéen. ndax nee na moom xam naa ne seen secteur bi. ñu jafee yilif lañ. ñu jafee yilif lañ. loolu nag yàllaa ko def ci yéen. loolu nag yàllaa ko def ci yéen. waaye nag ngeen gën a góorgóorlu. waaye nag ngeen gën a góorgóorlu. waaw gën a góorgóorlu bu baax. gën a góorgóorlu bu baax. yi li mu bëri bëri. oto oh, mu bëri bëri. bu ay sëfoor amutoon. bu ay sëfoor amutoon. ñu bëri duñ dugg ci oto. ñu bëri duñ dugg ñu bëri mënuñoo dawal. ndax ñu bëri mënuñoo dawal. ñenn ñi mënatuñoo dawal. ñenn ñi mënatuñoo dawal. kon sëfoor lu mënta ñàkk la. sëfoor kon lu mënta ñàkk comme mënta ñàkk nag. ñi ci nekk nañ xam li ñu yor ci nekk nañ xam li ñu yor mooy lan. xam responsabilité yor ko ci li xam ci li ñu yor. màggal gi itam. màggal boo agsee. boo agsee. na ñëpp ànd akuk dal. na ñëpp ànd dal. ànd tey. ànd tey. te xam ne. te xam ne. jëmuñ ci barab boo xam ne ab foire la. dañuy te xam ne jëmuñ ci barab boo xam ne ab foire. commerce it. du commerce it. Serigne Touba la mbiram barkeel rek. Serigne Touba la mbiram barkeel ba lu ci waay duggee rek. ba lu ci waay duggee rek. barke na ca barke ca. waaye nañ xam ne. waaye nañ xam ne. taalibe ya dajale seenu xaalis. taalibe ya dajale seenu xaalis. di ko paase. di ko paase. di ñëw Touba di ñëw Touba bëgg a siyaare si. waruñ leen ëpp yéene. waruñ leen a ëpp yéene. kon kon nag. ci li ngeen war a gën a bàyyi xel. ci li ngeen war a gën a bàyyi xel. mooy bañ a yokk mooy bañ a yokk yi. ndax loolu amul njëriñ. ndax loolu amul njëriñ. ndax lislaam. ndax lislaam. am njaay ci boppam. am njaay ci boppam. boo bëggee mu dagan. boo bëggee mu dagan. dafa am nu mu ko tëralee. dafa am nu mu ko tëralee. am na am na foofu bu fa àggee ci bénéfice. na xam ne bu fa ci bénéfice. dañ koy jàppe leneen. dañ koy daal di jàppewaat leneen. kon képp ku na ko set. nee na képp ku ciy jëf na koy sellal. ca xam ne ñee dagg paas di ñëw. waruñ leen ëpp tuyaaba. kon loolu na ngeen ci bàyyi xel. ca bàyyi njëkkante bu metti bi. ndax bëgg a jóge fu sori ndakaaru. bëgg am ñetti yoon ci bis bi. am ñetti yoon ci bis bi. loolu nit attanu. loolu nit attanu. boo ko defee. boo ko defee. li ñuy wax ànd ak kulla mu yashurin alim. li ñuy wax ànd ak kulla mu yashurin alim. loolu rek lay jur. loolu rek lay jur. loolu rek lay jur. kon. kon. ngeen góorgóorlu ci ngeen góorgóorlu ci bu baax a baax. sëñ Modou Moustapha Fallilou. sëñ Modou Moustapha Fallilou. daan niru woon waajuram ba sëñ Cheikh Mamadou Fadil. dafa niru woon waajuram ba Cheikh Mamadou Fadil. dafa mas a ñëw Italie. dafa mas a ñëw Italie. am ñu koy ñaanloo ci accident yu am ñu koy ñaanloo ci accident yu bari mooy leen am na ci loo xam ne ci yéen la. mu ne am na ci loo xam ne ci yéen la. ak di jàng dawal ba man ko. di leen jàng dawal ba man ko. tey nelaw ba doyal. tey nelaw ba doyal. la ca des nag dogalub yàlla la. ca des nag dogalub yàlla la. waaye nag nelaw guddi. waaye nag nelaw guddi. nelawoo guddi. ni la woo guddi. ba noppi war a xëy. ba noppi bëgg a xëy. yoru mbooloo. yor mbooloo. war leen yóbbu andiwaat leen. war leen yóbbu indiwaat leen. loolu fitna ji ci ne. loolu fitna ji ci ne. am na ci loo xam ne bu la ca dal rek yaa ko teg sa bopp. kon yéen sëfoor si. kon yéen sëfoor si. na a góorgóorlu. na ngeen gën a góorgóorlu. jël yàlla mi leen bind teg ci seen kanam. te jël sunu borom mi leen bind teg ci seen kanam. màggal itam. màggal gi it. ngeen xam ne bis bi bisub Serigne Touba. du la ñuy profité. du la ñuy profité. ñuy sàkk tuyaaba la. li ñuy sàkk ndax bu ngeen ko defee. te am ci pësteef. te am ci pësteef. akuk dogu akuk dogu. ku ko ci jëf ku ci jëfe. ku ko ci jëfe. te mu wóor ci yow. te mu wóor balaa déwén doo nee na doo ko rëcc. waaye nag day fekk nga am pësteef. boo amul pësteef ba nag. fa nga yemoon da nga yem. wala da nga doon jëkkante. doo ko ca kon jërë ngeen jëf. ñu ngi sant ñu sëñ Modou ak sëñ Pape. gaawati ñeen ñaan ñi nga xam ne ci gis nañ seen taxawaay ak seen yitte ndax fu ma leen gisee rek ci lii rek ngeen wax ak moom ñeen loolu nag rafetlu na ko bu baax ngeen gën cee góorgóorlu ci wane ngeen ci way ngeen ci it ñeen li nga xam ne moo gën a jafe ci lu baax moo way ca tàmbali ko ba noppi mu sot saxal ko kon nag mu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di ñaan ñu teewaat ci li ngeen